toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Mmh. Les extraterrestres sont-ils parmi nous Michael Jackson est-il toujours vivant Notre planète est-elle gouvernée par une force occulte, voire une société secrète qui est particulièrement bien implantée dans les arcanes du pouvoir C'est en tout cas ce que prétendent la plupart des adeptes des théories dites conspirationnistes. Des théories qui foisonnent aujourd'hui sur Internet, propageant irréfutable. Mais comment expliquer le succès de ces rumeurs Que nous disent les théories conspirationnistes au sujet de l'état de notre société Et en fin de compte, comment démêler le vrai du faux Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Aurore Van de Winkel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en information et communication, vous êtes spécialisée en rumeurs et autres légendes urbaines, vous êtes par ailleurs conseillère en gestion des rumeurs, et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé Gérer les rumeurs, ragots et autres bruits, publié chez Edipro en Loïc Nicolas, bonjour. Bonjour Vous êtes docteur en rhétorique, vous êtes membre du groupe de recherche en rhétorique et argumentation linguistique à l'ULB et vous êtes également le co d'un ouvrage collectif publié en aux éditions CNRS intitulé Les rhétoriques de la conspiration. Et enfin, Jerry Pragman, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, journaliste, vous êtes entre autres le fondateur du blog maçonnique iram.be et vous êtes aussi l'auteur d'un dernier 2011. Rappelez-moi chez qui chez Télévivre à Bruxelles, qui s'appelle L'antimaçonnisme actuel. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer cette discussion et cette émission, je vous propose de regarder cette petite capsule, ce petit montage réalisé sur Internet. Nous avons été chercher plusieurs théories, du complot, théories conspirationnistes et autres rumeurs. C'est une compilation qui est loin d'être exhaustive, mais qui nous donne déjà une bonne idée asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp ndamoo ñëpp tiitoro ñëpp eh, di leen bëggee ñi nga xam ñi ngi ci <clears throat> ligne bi ñu waxtaan vite fait rek eh, par rapport ak eh, la situation actuelle di Sénégal par rapport ak coronavirus bi ak tamit bruit yi ak rumeur yi coow yu bari yi. Euh, loolu moom Sénégal da koy yellool daal da koy yellool noonu la mu samel ba président yi fi jaar sax wax nañ ko euh, Abdoulaye Wade dana wax ni sénégalais bu noppee rek day nelaw wax jooju daf ma daf ma marqué n'est-ce pas bu noppee rek day nelaw il a parfaitement raison sénégalais armam gémmiñam la làmmiñam la loolu rek lay dundee donc amul xëy amul gont amul liggéey amul lenn lu muy def lu dul ubbi ngaamam di taawi di taawi rek di taawi rek loolu moom Euh, euh, yàlla da ko baaxee sénégalais da ko baaxee sénégalais loolu moom ay richesse am la ci richesse am la bokk c'est des richesses euh, naturelles naturelles yoo xam ni yàlla da ko baaxee sénégalais muy man di yow di keneen ak keneen on est tous malades malades de de la langue ñun déjà dañoo coronavirus ci làmmiñ làmmiñ suñu làmmiñ yëpp coronavirus ñun sénégalais yi déjà donc kooku moom jarul sori donc comme ni mu ko waxee. dama dama toog euh, une semaine di seetaan sénégalais di leen bàyyi xel di xool euh, nan la ñuy appréhender li fi am muy une pandémie mondiale euh, ñëpp xam ko muy coronavirus mu doon mu jóge ci épidémie dem ci pandémie maanaam boo xoolee dañ naan maladie après ñu ne épidémie pandémie nag mooy li nga xam ni dafa répandre ci àdduna bàyyiwul fenn tous les recoins du monde touché na ko nga dégg yenn sénégalais yi ñi naan la euh, euh, daw dem ci sëñ ba nañ ko ci loxo sëñ nga dégg ñi naan euh, lii du dugg Touba ñi naan ñii du lii du dugg Kaolack ñi naan lii du dugg ku nekk am koo xam ni Eh, moom nga yaakaar ni eh, moom mooy yor ay loxoom di téye eh, pandémie bi moom mooy contrôler pandémie bi ku ci nekk daal di ci demee ak ay rumeur am monde bi fu mu toll ci pandémie bi ak niñ ko jëlee au sérieux ak sénégalais yi ni ñuy ni ñu koy golo gololoo ak lañ ko def foog ne yëfu caaxaan la ak yëfu foo ak ay affaire du fanatisme la Euh, dama ragal ni dina fa def danger yi extraordinaire parce que y trop de fanatisme dans mon pays ñun ñëpp am nañ luñ gëm waaye tamit ngëm-ngëm dafa ànd ak xel ak xalaat dafa ànd ak réflexion mais euh, gëm c'est la foi léegi lan moo tax foi bi ñëwul rek ñëw dafa am ay da nga dem vers la réflexion vers l'analyse di lire di gëstu di xam di xam ni ah yàlla moom am na il existe bel bien jël na benn prophète am ah, da prophétie bi am na ay suite logique ba mu yegg si euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et cetera et cetera loolu ay gëstu la mais il s'est trouvé que da ngay dégg ay affaires yoo xam ni dafa lu sax di wax dafa rus lu di wax waaye euh, Sénégal moo demee noonu Euh, ku ci nekk euh, dafa am ci li nga xam ne ci loolu ngay dund Sénégal dafa am leen benn liggéey bu amul feneen foo xam ne Sénégal rek la am moom mooy toog muy dox toog muy dox wala tëdd muy dox loolu liggéey la Sénégal liggéey la comme ni amee ñu ne la lan nga ne ah man technicien la bâtiment wala yow nga ne man euh, tôlier la wala nga ne menuisier la noonu la amee Sénégal ay ñoo xam ne seen liggéey moom mooy toog muy dox ak ay wax muy dox ak tëdd muy dox loolu ay fam ay liggéey ay profession la foofu noonu donc euh, boo gisee loolu bokk na ci ñi nga xam ni ay grand mbubb la ñuy yor seeni grand mbubb la ñuy sol euh, euh, bokk fenn wala yor ab sant comme sama sant ma sant ñas wala comme ñas laa san ñee sant mbàkke ñee sant si ñee sant et cetera rek ñooñu pour ñoom euh, voilà ils sont bien casé pour parler avec tout le monde pour pour détenir le monopole de la vérité absolue di waxee ni mu leen neexee ak fu mu leen neexee tol seen i grand bubu ngandam kaala di yuuxu di wax lu leen neex di n'importe quoi et que que ça se passe ñëpp di bàyyi muy jàll nga gis boobu ba léegi des conneries que des conneries ku génn def discours conneries non bàyyi leen affaire bi bu leen tiit bu leen ragal sëñ Bamba géré na ko non alaaji Maalik capté na ko fële ci asamaan si wàcce na ko ci suuf si non garaawul non Cheikh Ibra nag mbëkk na ko dóor ko kuur gi dee na coronavirus no ay waxi dof yoo xam ni mais tu te demandes mais tu es dans quel pays quoi mais tu es dans quel pays mais tu comprends que l'impact de la pauvreté moom mooy def ay ay effet ci seen bopp yi extrêmement pauvre pauvre ci xel pauvre ci xalaat pauvre ci lekk ak naan loolu moo sonnal sénégalais ba nga xam ne même seen réflexion c'est des réflexions yo yoo xam ne amul c'est bas étage loolu de bas étage tu peux pas comprendre des gens it waaw xam nga waaw affaire bi teg nañ ko ci loxo mais yow mais c'est sérieux mais yow yaa sérieuxul mais la chose est sérieuse et écoute NBA c' est des milliards de dollars seen seen match NBA c' est des milliards de dollars générés écoutez-moi bien des milliards de dollars générés le championnat les championnats muy euh, championnat France Angleterre et cetera c' est des milliards d' euros yi ñuy généré yaa ngeen dégg lu ma leen di expliquer gis nga gars yi bu ñu demee ba arrêté seeni NBA arrêté championnat yi. arrêté lépp li nga xam ne moom mooy ay événement lépp li moom mooy manifestation et cetera et cetera c'est parce que c'est du sérieux c'est pas de la rigolade c'est pas de la rigolade du caaxaan c'est-à-dire mi ngi mel ni nga ànd ak benn Balla Gaye ngeen di dox di dem am lenn luy ñëw di leen attaqué Balla Gaye di yuuxu di jooy yow ak sa cikili ngay retaan eh c'est parce que vraiment tu comprends pas c'est c'est ça montre que yow xamoo dara lu xew parce que tu peux pas ak toll. ànd ak Modou ak Balla Gaye yow nga ànd ak ñoom nekk ci digg bi ngeen di dox di ñëw ñu gis benn affaire di ñëw ñoom ñëpp di jooy di yuuxu di woote ndimbal yow ngay reetaan c'est parce que t'as rien compris. war nga noo garaawal bàyyi leen noonu dina ñëw dina yegg si c'est que ce fanatisme la loolu dafa doy dafa extraordinaire mais le Sénégalais aime la facilité en fait le Sénégalais ne veut pas se fatiguer du lire du gëstu. sonalul boppam donc lépp lu ñëw rek da koy jël rek ne yàlla la bàyyi leen ko sëñ Bamba bàyyi leen ko mu dégg ay non gis nga euh, coronavirus mënul dugg Touba parce que sëñ Touba sàmm na Touba mais mais qu'est-ce que c'est que ces genre de choses là mais Serigne Touba sax day feebar Serigne Touba feebar na Serigne Touba Mbàkke Xaadimul Xaadim feebar na Baye Ñas feebar na Serigne Touba dafa feebar Baye Niass feebar na El Hadj feebar na giiru dundam feebar nañ ñooñu mun nañ leen sàmm ci feebar bi te ñu feebar ñoom te ñuy feebar le prophète sallallahu alayhi wa sallam sax feebar na le prophète sallallahu alayhi wa sax feebar na feebar day dal ku ne ku dul yàlla ku dul yàlla feebar da koy dal nattu day dal ku ne ku dul yàlla nan la ñi nga xam ne feebar da leen a dal ci seen dund ñoom muy sëriñ Bamba kenn mënu ko dindi maa ko maa taxaw wax ko amul ku ko mun a dindi sëñ Bamba feebar na feebar na tëdd ne dafa tawat bàñes feebar na tëdd ne dafa tawat le prophète sallallahu alayhi wa tëdd na feebar na dafa tawat alors ñuy feebar ngeen ne ñooñu ñoo leen ciy génne ñoom te ñoom ñuy feebar ñoom mais c'est parce que y a problème sëñ Bamba sàmm na réewam sàmm na dëkkam alaaji Malick sàmm na di tëdd nañ fii tëdd nañ faa sa waa ji yéen da ngeen foog ni yéen foofu rek moo rek moo am nit yu baax quoi yàlla moom dafa jël ñu baax yëpp sànni leen Sénégal quoi keneen baaxul feneen yeneen dëkk yi profet yi nekk wala prophètes yi ñeneen yeneen prophètes yi ñoom amuñu fuñ leen denc yeneen profet yi amuñu ful leen denc xanaa boo demee Irak amul ñu fa denc boo demee Iran amuñu ñu fa denc et cetera et cetera te Iran bokk ci les trois pays ñu gën a ñoo xam ne coronavirus moo leen gën a jàpp Iran ba ñu woote nimbal Irak nag. ñu denc fa ay ay prophètes suñu nit yi baaxee dañoo gën suñu prophètes yi mais y a du fanatisme dans ce pays mais c'est extraordinaire c'est c'est des terroristes ñi nekk ci net bi di wax lu leen neex c'est des terroristes c'est des terroristes langage yu ñu war a jàpp tëj ci kaso waruñu leen bàyyi noonu parce que ñi ngi c'est des conspirationnistes lu ñëw ñu ne c'est théorie du complot lu ñëw ñu ne théorie du complot feebar buy dal ba dal ay joueur NBA dal ba dal ay footballeur ay milliardaire lay dal le premier ministre canadien jabaram trido jabaram dafa dafa am coronavirus jabaram trido le premier ministre canadien jabaram dafa am coronavirus Trudeau ñu mettre ko en quarantaine est-ce que xam ngeen loolu c'est que yéen vous prenez pas les choses au sérieux ah dañ ko mettre en quarantan gisul jabaram jabaram feebar am coronavirus gisul jabaram ñu yóbbu jabaram di ko faj ñu séparé ko jabaram di faj jabaram moom ñu met ko en quarantaine muy doxal réew mi ci biir këram jox ordinateur ne ko eggalil liggéey fii en attendant luy daane ay milliardaire yi coronavirus ñuy tëj ay championnat di tëj ay NBA di tëj ay dëkk États-Unis tëj seeni frontière ak l'Europe milliards yuy dugg est xam ngeen ko Chine commercialement parlant Chine presque moo yor monde bi ñu mettre ko en quarantaine bourse de France daanu le CAC 40 daanu monde bi nekk en faillite ñu ñu mën a wax sax crise mondial ngeen toog fa ngeen toog seen ruq boobu de deux mètres quarante mel ni kaso par rapport au reste du monde monde bi toll ay hectares yi hectares ngeen toog ci seen kaso bu ndaw boobu noonu seen chambre à à gaz boobu noonu ku nekk di mbeb mbebi di lamantawu ak ak wax waxi dof te monde bi fu mu ne sax nekkuleen fa c'est-à-dire boo génnee Sénégal génn cest yaa ngi ci monde bi Sénégal beneen euh, monde boppam la yor extraordinaire mondo boppam chambre à gaz la c'est pour les prisonniers à ciel ouvert ñu sànni leen foofu noonu ñoom ñu toog fa xamuñu sax nu monde bi di doxee nekk ci seen i discours ak ay fenkat ak ay les terroristes di les terroristes du complot je ne dis même pas théorie du complot les terroristes du complot toog di fen ku ne ñi naan sëñ Bamba ñi Alaaji Maalik ñi naan Baay Ñas ñi naan ku Limaamu Laay que des conneries doo leen sax rus monde bi toll ci boobu dimension yoo xam ne ñëpp di jël seen i précaution jël ay milliards gars yi affaire bi di daane coronavirus di daane ay ay ay banque coronavirus di daa di arrêté ay avion coronavirus di arrêté commerce bi coronavirus gars yi di dem di wut di lu ñuy lekk di di defaru di préparé wu ak monde bi ci ci lu mu jëm ñu nekk Sénégal ku ne naan Fane Ndiaye Fane Ndiaye la Fane Ndiaye dëkkul Touba de di ko di ko génne Touba yéen yàlla dafa xam dafa yàlla ngeen tege ni dafa feebar bi dafa am fa fu muy yem ak fu mu dul yem ay Touba la bu dugg ko Touba Mbàkke la war a yem wala non Jurbel la war a yem non Gosaas Kër Madiabel la war a yem mais vous avez des problèmes ah mais vous avez il faut rest sincère et sérieux ñun gënu leen ñu nekk yi murit ak ay ak ay tiijaan ki laayeen gënu leen ñu ko nekk gënu leen ñu nekk murit ak tiijaan ak ay laayeen billaahi wallaahi gënu leen ñu ko ne ñoo leen gën a teng fuuf teng teng bu dee teng ñoo leen gën a teng tànku neen laa def tànku neen yanu booli booli booli bernde bu tàng jër yàpp bu tàng jër ma jëlee ko jannatul maxwaa dox ba jumaa ja pour yóbbul ko Serigne Saliou tànku neen sama tànk yi futt ba tol nii moom ma am ay double tànk barke alxuraan barke xaadimul xadim laa la wax ñoo leen gën a tàng ci sëñ bi fuuf wax ji nag dafa bëri ku ne mun nga ratatati nii mais bu dëgg desee dañuy affronter dëgg bi mais bu ja jaayante dese pour jaayante ngir sëñ bi kenn dàquñu ko bool bu tàng jër jër jër jër taxaw ñu rangale ay bool ci Cheikh Béthio Thioune laa la ci jamono bi man bokkuma fa sax dama ñëw dajanteeg wax ji gars yi di jël bool yi di dem di jël bool yi di dem ma taxaw xool Cheikh Béthio génn mu dajante ci juste may ñëw ak sama gars yi Cheikh Béthio génn waaw waaw bool yi lu muy def fii waay waaw ah, ma Serigne Saliou sëñ Bamba jarul leen lii bool yi fii bool yi ñu war a yóbbul bernde yi ñu war a yóbbul Serigne Saliou ngeen toog di ko xool mu ne ma rek ma aalu mu ne ëskay ak sa rek yanu benn tel teg sama bopp bi affaire bi di ma jox cinq cent degré ci euh, sama sama sama sama euh, xel mi teg ko sama bopp bi sama yuur gi di bax buq buq buq ndax tàngoor ndax xool leen gaa yi koy yanu dañuy préparé wu jël ay kaala yu ngand teg ko ba mu lem def nii ñu doog a teg bool bi man nag dama yanu bool bi noonu ndax aalu ndax daf ne waaye yéen bool bernde Serigne Saliou yi ngeen nar ko fi bàyyi nii bernde Serigne Saliou yi nii ngeen ko nar a seetaanee te mu war te mu war koo xëloo rek ma yanu buum teg sama kaw bopp bi amul dara sama bopp bi direct tàngoor gi si sama bopp bi barke Sëñ Bamba carax laa soloon sànni carax yi bu bu carax yi naaw barke Xaadimal Moustapha dox laa la wax maxwaa buntu kër Cheikh Béthio Thioune ba biir kër sëriñ saalu ak bool bi romb gaay bum bum bum dama yegg di egg ñibbi Kaolack feebar ay fan sama tànk bi toll noo xam ni ba dama foog ne dinañ ko dagg wax tax may wax da ngeen maa gën a gëm sëñ bi yéen te da ma gën a doyloo sëñ bi waaye bu dëgg desee da ngay xam ne àdduna dafa am li fi ne nga accepté ko nga jël ko. positivement n'est-ce pas xam ne lii c'est une réalité nga xool nga jël say précaution chaque jour ñuy jàngalaate dama ne lu bàyyiwul ay milliardaires bàyyiwul benn dëkk bàyyiwul Iran bàyyiwul Irak bàyyiwul États-Unis bàyyiwul France bàyyiwul Canada bàyyiwul euh, Italie munul bàyyi Sénégal munu fi bàyyi Sénégal donc préparez-vous à ça moo gën ngeen bàyyi seen caaxaan yi bu ma déggee ay nit vraiment c'est des fanatiques sax am na fanatism am na ñoo xam ne dañ fanatique ba pare am bopp mais Sénégal dafa ay fanatiques yu bett des bett fanatiques kooku moo gën a garaaw kooku ay terroriste la ku bett ba pare nekk fanatique kooku moom sa kenn mënul ko dara kooku moom sa mbalit la mbalit il faut fanatique sax nga am xel quoi ay ñoom Mamadou Coulibaly te ñu tegoon bomb ñooy ay fanatique lañ mais ay fanatique yi am xel lañ boo toog ñoom du waxtaan mun nañ la réeral mun nañ la nax mun nañ la yóbbu ay Kouachi Koulibaly Koulibaly mooy Mamadou Koulibaly bu newoon Grigny mais booy yooyu dañoo dem dañoo dugg ci islam nekk ci nekk ci di di ci dund di dem ci jàkka ji di di ko raxas di bale foo ko fekk bu solee grand boubam euh, mi mi ngi jël benn kaamil bu ndaw dugal ci poosam dem maîtriser affaire yi jàng gëstu ko bu lay waxal mun na la nax mun na la sax réeral wala mun na la enrôler ci dilam ñooñu am nañ bopp mais fanatique bu bet moom kooku c'est kooku moom déchet la déchet toxique la ci société te loolu moo nekk Sénégal des fanatiques bett duñu réfléchir duñu analyser dara ku nekk toog rek foog ni moom sëñ bi bàyyi leen sëñ bi mais sëñ bi day feebar sama waa ji fii yàlla rek moo dul feebar sëriñ yëpp a fi feebar tëdd sëriñ yëpp woo leen ma benn sëriñ boo xam ne dund na ba dee te feebarul sëriñ yëpp dund nattu sëriñ yëpp a feebar bu dara amee dañ koy jël sérieusement analyser ko ñu tere ñu ne ma bàyyi leen lii ñu bàyyi ko bàyyi leen nuyoo bi ñu bàyyi ko dee leen raxas seen loxo ñi raxas seen loxo dee leen moytu di jaxasoog nit yi ñuy ja moytu jaxasoog nit yi loolu moom mooy solution bi mais ku ci nekk génn kii naan dama la wax lii kii naan dama la wax mais yow am na ko waa Yunus bu ko jën bi wanne li mu wax boo ko waxee feebar nanga waaye yow ma ne ñaata yoon la nit am ay problème wax lu Yunus wax yàlla fekk si ko ñaata yoon ñaata yoon yàlla ni boo ñaanee lii boo amee problème boo ñaanee lii ba nga nga jël loolu ñaan ko mayu la ko c'est pas parce que lii dañ ne boo defee lii lii rek dangay am loolu maye bi day des ci yàlla dafa am li fi am ñu war ko jël au sérieux coronavirus pandémie la c'est extraordinairement extraordinairement sérieux ab feebar la boo xam ne day mel ni paludisme ak sot da jàpp sa dënd bi jàpp say articulation yi ngay sëqat mu sonn doo mun a nokki c'est viral ngeen loolu ñëpp xam ni loolu am na lu koy joxe ah boo mu ne raxasal loxo mu nanga ma nang luñ koy joxe sax gisaguñ ko ñoom ñi naan lii la ñee ngi naan chauve-souris la ñee ngi naan lii la ñee ngi naan ku nekk a ngi joxe say idée waaye buñ leen waxee ni def leen précaution yi ngeen def ko parce que da ngeen xam ni nit yi ñu am na ñu may dégg ñi noo États-Unis ñoo ko jël ñoo ko dugal fii ñoo ko dugal fa c'est faux les théories di complot la les conspirationnistes là lu ñëw ñu def foo ñu ñëw ñu ne noo lii fii la jóge se ay fen dañuy fen man maa wax amul benn américain bu jël dem jox ko ñële dama ne lim def Chine mi ngi koy def Amérique ay américain bu demee Trump dem bay tëj ay aéroport am tëj ay port am arrêté business yi ak Chine nga xam ne Chine nu mel ci ci ci commerce ak Italie Europe li fay dugg ci ay milliards NBA bi championnat yi manifestation yi ba ci seen conférence yi ak seen i seen meeting yi sax dañ ko arrêté des milliards et des milliards et des milliards yi ñuy perdre ngeen foog ni États-Unis dañ jël benn affaire ni dañ koy dem defi ji waa Chine affaire yi ñoom jëluñu précaution yi mu ñëw dalaat seen population ba ñuy yàq seen i commerce ba bourse bourse de la France nekk en fay di daanu ngeen tege ni yooyu noonu ay caaxaan la ay ay dañ ñoom dañuy jouer ci seen ci seen i àdduna les États-Unis ne peuvent en aucune en euh, manière ne dañuy eh, dugal benn virus ci la préparer ci laboratoire yi pour jëm jox ko Chine te jëluñu seen précaution loolu mënul nekk le conspirationnistes y en a trop au Sénégal nu amee Sénégal noonu la amee ñu nekk ci internet bi ñoom aussi ça parle des conspirationnistes euh, du euh, euh, du théorie du complot ñooñu ñuy expliquer comme quoi que non ils sont man dinaa jël benn virus jam ko calce fële ne pour yàqal calce parce que dama nekk en concurrence ak calce après affaire virus bu ñëw mujj ma mujj ma daane loolu ban xeet la te jëluma benn précaution il faut accepter la réalité gis nga dara bu amee da ngay accepter la réalité jël say précaution surtout tout boo ci bëggee génn te arrêter les théories du du complot théorie du euh, et cetera et cetera ay les di wax ku nekk di indi ay affaire ku nekk non c'est pas ça te loolu Sénégal ëppee non gisoon nañ ko ci benn livre mais coronavirus a existé mais mel woon ni coronavirus c'est juste c'est le mot feebar bi mus na am melu woon nii coronavirus c'est un mot ñu ñu koy wooyee covid 19 corona ko bi corona vi virus dee bi moom mooy disease feebar 19 parce que mi ngi génn en 2019 donc bu dara amee mais coronavirus existé woon na avant et ce nom-là a existé c'est pas la première fois coronavirus existé na coronavirus lañ transfert def ko Covid 19 pour expliquer coronavirus disease bu 2019 c'est juste ça mais ça a existé livre yi bindoon nañ ci livre yooyu gars yi di génne na waxoon nañ ko bu yàgg dama ne livre coronavirus amoon na. c'est pas la première fois le mot c'est pas la première fois ma amoon na feebar boobu amoon na fi des années et des années avant amoon na fi il faut ngeen xam loolu mais ku ci nekk nag yaa ngi jéem a xool ak say rumeur ak say théorie du complot nan nga defee pour naxaate pour fen pour xëcc attirer l'attention des gens nga jéem a créer ay affaire na nu xolle livre waa ji waxoon na ci donc laboratoire lañ ko travaillé c' est faux man maa ne Mollah Morgun moo ne waxu leen dëgg kenn travaillé ko ci benn laboratoire c' est pas les américains man je défie tout le monde kenn ku may mun a indil preuve ni que c' est les américains ñoom ñoo ñoom ñoo virus bi à travers euh, ay laboratoire après dem injecté ko waa Chine après après jëluñu précaution affaire boobu dem mujj tasaare monde bi di rey ay américain di rey ay français di rey ay canadien di rey ba président yi président dama ne premier ministre Canada jabaram sax am coronavirus ba démb démb démb Trump dafa demoon pour xool ba xam moom amul coronavirus hmm? président yi ministres yi députés yi footballeurs yi milliardaires yi basketteurs yi luy dal ñëpp dugg fu ne ci àdduna après vous voulez dire que non gars yi dañ ko créer pour après boo leen jógee ci lii rek dem ci lee Sénégal yi noo dañ ko créer pour wàññi àdduna bi bu doon Afrique rek la dal ñu ne dañ ko créer pour wàññi africain yi léegi àdduna bi la dal dañ ko créer pour wàññi àdduna bi ñoom dañuy wàññi àdduna bi boo wàññi seen bopp quoi les les conspirationnistes là yéen laa wax ñoom dañuy ñoom léegi théorie bi comme ñoom dañoo créer benn virus pour wàññi àdduna boo wàññi seen i jabar yi seen doom boo wàññi seen bopp parce ñoom sax da leen di daal ba wàññi seeni star mondial yi non il faut arrêter quoi il faut qu'on soit un peu sérieux coronavirus pandémie la dafa wër àdduna dafa daj àdduna yàq économie yàq économie réew déstabiliser ay système gëstu neex na lool xalaat neex na lool di waxtaan neex na lool mais dem bay wax lu nga xam ne nag conspirationniste yi ñoo koy créer mu tas senegal ku ci nekk di xëcc di jëm sa boor di wax bu dara ñëwee ok c'est bon diine nga am diine mun nga ko ci wéer mais bu ñu la waxee dafa say précaution nga boole ci ñaan yàlla mun na la jàppale yàlla mun na la jàppale on dit pas ñaan am na yàlla mun na la jàppale nga gis kenn ku génn naan ay garab yaa ngi nii cinquante mille cinquante mille ren laa jaxase mais nan ngay fajee loo xamul nan ngay fajee loo xamul ko yow hmm? jël say butéel teg jël say siwo teg jaxase ay garab yow nan ngay fajee loo xamul loo musul gis sa mbokk amu ko amoo ko nga bëgg koo faj xamoo lu koy créer xamoo lu koy indi même docteur yi sax xamaguñ ko ngëw ngi mun a taxaw ne yow da nga koy faj boo jógee Chine boo jógee Japon boo jógee Singapour foo saa yoo ñëwee rek mun naa koo faj mais nan fajee loo xamul nan ngay fajee loo musul gis lan ngay fajee loo xam ne yow sa mbokk amu ko kenn koo xam musoo ko gis yow génn nga ba dem wuti ay garab ñëw indi teg non mais c'est du jamais vu mais Sénégal les choses ne nga dégg ku nekk nag waaye coronavirus nañ ko takk ba mu dëgër yóbbu ko ci géej gi tiire ko non coronavirus bu ñëwee ba sëñ Bamba capté ko ba alaaji Malick wàcce ko ci suuf ba si Baye Niass bloqué ko non nga nga xam ne fii mooy ah, mais su leen sax respect seen seen seen ngeen di wax seen mag yi kilifa diine yi joxu leen leen sax respect parce que respect booy jox nit respect am na foo xam ne doo fu tudd turam doo tudd turam te Sénégal lool la. da gis ko dem ci baar di man di naan barke Bamba barke sëñ Fàllu kooku jox na tër sëñ Fàllu yor sab sangare di naan di waxtaan ak sab xarit bu yor sàngaraam di naan ci baar bi sëriñ Fàllu laa wax booy lu mo la wax dëgg la est-ce kooku jox na foofu respect sëñ Fàllu kuy dem ci boîte de nuit waxtaan na sa gaañ ngeen nekk ci boîte de nuit musique bi di jolli sàngara gi di jolli góor jigéen yi di jolli jigéen yi di jolli affaire yi tum na ñaabam njalle nga fa naan barke sëñ Touba chaque jour ngeen dem ci boîte yi dégg barke sëñ Touba chaque jour ngeen dem ci baar yi dégg barke sëñ Touba donc lii bu ñëwee nit naan ay barke sëñ Bamba du dugg fii du dugg fay ñooñu joxuñu cër ñooñu jàppee leen ni ñooñu ak ñu nekk ci baar yi ak ñu nekk ci boîte yi naan barke sëñ Bamba ak ñooñoo yem képp képp nag kepp fu bëri ñi nga xam ne joxuñu respect kilifa diine joxuñu respect sëriñ yi dañ leen di wàcce di leen toroxal di leen néewal doole di leen di leen wàcce foo xam ni xajuñu fa nekkuñu fa sax nekkuñu fa sax soyons un peu sérieux sama gars coronavirus bi dafa daane ay économie bourse France dafa nekk en faillite les États-Unis di taw di jël seen précaution def def seen dëkk état d' alerte état d' en état d' partout boo duggee ci métro yi métro yaa ngi wax ak yow gel yi ñu ngi ko sot partout partout ay gel la casque gel gars yi ñu ngi nekk ci fitna monde bi foo dugg depuis coronavirus bu mu amee ba léegi dugg naa ci avion yi maintes fois dem naa dëkk fa dëkk ak dëkk avion avion dëkk boo dem fitna aéroport yaa ngay yuuxu métro yaa ngay yuuxu dama ne bruit bi bruit bi am nii musul am musuma voyager déggee bruit bi nii avion boo dugg ñu ngi la koy wax gel yi ci bunt avion yi avion yi léegi ñëpp a daw avion yi sax dañoo mujj arrêté kenn duggatul ci avion yi ñëpp a ngi dóori casque ñëpp a ngi dóori ay masque ñëpp a ngi dóori ay gants ñëpp ngi daw di moytuwante avion yi sax amatul nit ñii di arrêté ay avion ne avion du fi duggati bu jóge Europe waa Canada seeni seeni maanaam ñoom premier ministre lañu am amuñu président maanaam seen jabar seen président seen président seen seen première dame dafa dafa coronavirus Canada vous pensez que sa c'est seen caaxaan yi la quoi yéen man je parle des Sénégalais ah yéen da ni yéen seen caaxaan yi la quoi dëkk bi ngeen di wax dëkk kii la dëkk kii la lan moo tax ni yi di dee dëkk kii la bu doon dëkk kii la kay lan moo tax ni yi di dee kon dëkk kon kon dëkk ñi ngeen di wax nii te ñu respecté leen ñoo ñu seen dëkk kenn du fa dee kenn du fa feebar quoi Sénégal kon kon dëkk Serigne Bamba la dëkk Alaaji Maalik la dëkk Baay la dëkk Limaamu kenn du fa dee kenn du fa feebar kenn fa nekk dans le coma parce que dëkk Sëñ Bamba la dëkk Alaaji Maalik dëkk Limaamu Laay la pour ñu koy wax respecté leen ñooñu jox leen cër ñooñu ñooñu caaxaan nuñ caaxaan ya ngeen nekkee ñooñu foowuñu kafuñu kafaale wuñu foontu wuñu ñu kenn ci foo bàyyi leen foo di leen ci dugal kooku dañ leen ko ñaan si sinon boo leen dee balaa ngeen dee di ngeen torox parce que ni ngeen di toroxalee kilifa diine yi dafa ñaaw yéen laay waxal fu leen neex ngeen dugal leen fa fu leen neex ngeen waatee leen fa fu leen neex ngeen foowee leen fa di leen pamti pamtee foowuñu fooloowuñu waxuñu kenn nga foo ñu kenn ci ay caaxaan dégg naa sëñ Fallou dafa mus a toog ci ab ëtt këram ah, rek benn waay tibb affaire beneen rek lok xaax tëf la def génne benn kii benn taalibe yi comme genre xeet gi dem rek tibb suuf si rek lok ko sëñ Fall na ko waa loo ci jublu lii loo ci jublu mu ne ah <laughs> bëgg la rek sëñ bi bëgg la rek sëñ xam lu ko sëñ Fall wax ah salte rek salte rek salte rek boo ci feebare boo ci feebare boo ci feebare di nga xam ne looy faj de salte rek salte rek salte rek sëñ fal na ko salte rek salte waa ji dafa lok xaqandiku sëñ bi bu sëñ bi tuflee mu dem lok ko toog sëñ bi ne ko loo ci jublu mun ne ko bëgg la rek xam ni sa lépp sa lépp gi sa lépp baax sa lépp a baax sëñ bi bu sama lépp baaxoon est-ce dinaa ko xàqandiku dama koy wann sëñ bi moo ko wax sëñ Fall bu sama lépp baaxoon du ma ko xàqandiku dama koy wann mu des ci man ma xàqandiku nga loq toog mu ne ko salte rek salte rek boo ci feebaree di nga xam loo lay faj salte rek boo ci feebaree di nga xam lu lay faj ban sëriñ moo xamul feebar ban sëriñ moo musul feebar après ngeen ne bàyyi ngeen ko ci loxo sëñ bi ñoom ñoom ñooy toog di toog toog ñoom ñoom sëñ bi ñu ngi toog di leen téel feebar bi ko ni feebar la warul dugg fii ñoom sëñ bi ku ci nekk sa sëriñ mi ngi toog sa bunt buntu bunt buntu dëkkam di di arrêté affaire bi naan non bu mu fi dugg de bu mu fi dugg de mais il faut arrêter quoi arrêter leen fanatisme bi arrêté leen fanatisme bi kenn jël monde bi def ko di sérieux le monde est sérieux c'est du te bàyyi lu ñëw ngeen def ko c'est théorie du complot conspirationniste yi ku nekk taxaw fen gu metti ki naan da ko dugal fee ki naan nangam nangam te bougé wuñ meetar fu ñu toog lañ toog livre yi la ñuy lire ku lire li mu amee ay poète nu mu amee ay écrivain noonu la amee ay conspirationniste yoo xam ne di lu ñëw ñu def ko théorie du complot lu ñëw ñu def ko théorie du complot même sida bi nga xam ne yàlla waxoon dina wàcc feebar boo xam ne balaa ñu koo faj nangam ak nangam am na ñu nga xam ne gis naa ñi génn benn vidéo waa ji di wax naan man ma ñu ñoo jël sidaa bi ñu def ko ci pikiir ñu dem pikiir ko waa Mozambique après waa Mozambique jox ko mais bàyyi leen fan sida di feebar bu yàlla wàcce génne ku jaaree la ko ci góor jigéen góor jigéen yi lañ ko njëkk a découvrir sida di feebar bu yàlla wàcce ci góor jigéen yi muy law conspirationniste yi dem toog créer seen affaire di fan naan ay ñun NASA nu base américaine bi lañ ko jox ñu dem pikiir ko waa Mozambique Mozambique Zimbabwe Zimbabwe mais il faut arrêter il faut que tam ngeen yeewu xam ni dans ce monde là am na ay conspirationniste ay ñi nga doo xam ni luñ ñëw ñu ne théorie du faux la luñ ñëw ñu jéem ko toj ko génne ko xool nuñ ko am kuñ ko gàcc ne non c'est vraiment dañ ko préparer ci laboratoire ñun ñi ñoo ko vacciné dañuy fen rek moom monde bi nu mu amee ay dëgg noonu la amee rumeur rumeur yi dafa bëri dañuy manipuler dafa am ñoo xam dañuy manipuler chaque jour moo wax lañ loolu la ñu woowe l'ingénierie sociale l'ingénierie sociale dafa am ay ingénieur social yi nga xam dañoo to di analyser xelu nit gis nga tubaab bi dañoo teg ay ay ay crâne ay servo cerveau cerveau nit bu ñuul cerveau nit bu weex cerveau nit bu jaune lépp ñu teg cerveau di analyser nan la ñuy xalaatee di jël ay nit bu ñuul di jël ay nit bu weex di ñeen ay jiit bu jaune dugal leen ci benn barab di màgguloo leen foofu di xool nit bu ñuul bi nan lay xalaatee nit bu weex bi lan mooy xalaatam nit bu jaune bi lan mooy xalaatam et cetera di gis nit bu ñuul bi saa yi yeewoo lekk ak naan lay laaj papa eh, doo du ma jox lekk yaay doo may ma lekk papa doo may ma naan di gis nit bu weex bi moom day yeewu di dajale ay affaire di ko di ko dajale comme genre Einstein yooyu dajale benn weñ ay batterie di naan de parce que dañ leen fa bàyyi lépp ci biir kër gi lépp lañ leen sottil ci biir kër gi nit bu weex bi moom bu yewoo ngi jël batterie bi jël fil bi di ko jéem a taqalee di xool nan la ko mun a kiyee di créer nit bu ñuul bi saa yu yeewoo moom lekk naan nit bu jaune bi moom moo gën a avancé ci affaire technologie mooy ay Japon mooy Chine et cetera ku ci nekk ñoo ñu dem ba xam ni noo nit bu ñuul bi moom il est émotionnel lekk naan moo ko sonal les besoins primitifs nit bu weex bi c'est après au delà de ça moom bugg na ay réflexion moom tubaab bi fu mu toog mi ngi réfléchir waaw mu dañ def lii noonu di def lee nit bu jaune bi moom mi ngi jéem a créer ay affaire mi ngi dajalee ci bi matériel yu ñu def ci biir kër gi nan lay créer ay affaire di dajalee ay batterie di dajale ay fil di ko dañ dem ba xam ku ci ne ñooñu la ñuy woowee piratage de cerveau ñu ñuy pirater cerveau yu xool ku ci nen ngay xalaate ñooñu la ñuy woowee les ingénieurs sociaux l'ingénierie sociale boo déggee loolu mooy ñi nga xam ne dañuy xool xelu doomu aadama nan lay xalaatee nan lay réfléchir nan lay gisee ñooñu dañoo nekk ci monde bi nekk yor tam seen monde nu mu amee ay conspirationniste nu mu amee ay nouvelle ay nouvel ordre mondial nu mu amee ay franc nu mu amee ay la communauté LGBT noonu monde bi dañ dañu dañoo constitué wu ak ay lobby ci ay lobby lañ constitué wu sa monde la ku ci nekk say théorie ku ci nekk say politique ngay jéem a insérer mais du tee nag nu metti metti metti yàlla tam am na di créer ay mbiram di ko wàccee ci kaw ci kaw doomu aadama yi mais bu ñun tam buñ topp wax ci ko ba fàtte ni yàlla tamit moom tamit am na malgré ñoom dañuy créer di teg mais moom aussi am na possibilité ak am na pouvoir moom tamit di imposer moom tamit force am ak pouvoir am ci société di leen wàcceel ay nattu te yàlla wax na ko ci alxuraan dinaa leen wàcceel ay nattu dinaa leen wàcceel ay nattu la ma wax loolu la yàlla wax dinaa wàcc ay nattu ci kaw suuf donc sa exist mais c'est pas nag ñi dem ba nga xam dañuy parano lu ñëw rek ñu ne non euh, te complot lu ñëw ñu ne complot nu nga parano yi loolu la yenn ba fanatique yi tam parano parce que ñoom tam lu ñëw rek ñu ne waaw bon sëñ bi dina ko téye quoi amul problème nañ dem kasu rajab waaw lan la waaw non sëñ bi dina ko téye na ko gérer non sëñ Fall yow tamit na am mu am waaw na commencé di de amul benn sëriñ bu ñëwoon fii pour def ay miracle benn sëriñ jogul pour miracle te miracle taxul ñu ne nitki ki aay na magicien yi kon kay nañ dem jaamu ji magicien yi ñoo dàq miracle fii magicien yi ñoo dàq miracle awma dara loxo bu neef nii ma ne nii léegi ay alal di wàcc ay milliards di wàcc ay million miracle la da ngeen di jaay miracle rek miracle moo tax ngeen di ngeen di rey seen bopp nañ dem jaamu ji tubaab bi ku ko gën a dàq miracle tubaab bi jël benn avion defar ko nit dugg ci mu mel ni picc mu naaw ci asamaan asamaan si ba yegg fu ko neex jóge Sénégal ngeen dugg ci avion ab ab weñ ngeen dugg weñ ku nekk toog weñ bi ne fur dugg ci asamaan si di xotti ba yegg États-Unis dafa am tali bu ma leen laajee da gis tali eh. Eh. dafa am tali mais amul tali asamaan si amul tali sama gaay mais nan la nit jege avion dugg ba ci asamaan si xotti ko dem ba États-Unis te réerul ci biir asamaan si ñiit kii daw ba France nga jël sa téléphone léegi def direct def direct ngeen may seetaan je si à des centaines de milliers de kilomètres ak yéen sorante nañ c'est des centaines de milliers de kilomètres da ngeen di jaay miracle rek moo tax ngeen gëm nit non n'est-ce parce que kenn du wax sëriñ bi boo wax leneen miracle rek sëñ bi moo julloon ci géej gi sëñ bi moom kii jébi taq suuf bu parlez que de miracle te benn sëriñ jógul pour ay miracle dafa sës moo tax mu def loolu mais bu dee miracle rek ngeen gëm dem leen gëmi tubaab bi moom mi taxaw def créer benn booy créer ba créer Facebook bu ñun ñëpp di fi dajale ma bës benn bouton rek mu nekk direct ngeen may seetaan fii ki jël téléphone am woote nag mun naa woote léegi Sénégal ngeen wuyu ma léegi fii téléphone bi amul fiil amul dara fiil amul tus ñu ne ay satellite ma ne allo ñi bund waaw bund di ma wuy allo ma nekk à des centaines de milliards de kilomètres kooku bu dee miracle rek dem leen jaamu ji ñooñu benn sëriñ jógu fi di liggéey ngir miracle miracle bu amee rek c'est parce que dafa sës sëriñ bu def miracle sa parce que dafa sës amul leneen yàlla mu gëm yàlla wóolu yàlla rek woo yàlla yàlla wuy si ko miracle bi am pour mu jàll foofu loolu moo indi miracle mais tey jii nga gis benn ab taalibe sëriñ Touba ab taalibe murid nga laaj ko ci sëñ bi ay miracle rek la lay wax sëñ bi bu mu jullee ci géej gi sëñ bi bu mu euh, sëggee si taq suuf sëñ bi bu mu bu mu affaire ba sëñ bi bu mu kiyee sëñ bi bu mu kiyee sëñ bi sëñ bi sëñ li ay miracle kese ngay wax kon yow xamoo sëñ bi parce que miracle ci dox ci dox bi la sëñ bi buñ ko boolee gaynde gi gaynde gi ne bër après daanu gaynde gi raam ay miracle rek ngay wax kon xamoo sëñ bi bàyyil sëñ bi jógal ci sa bopp jógal ci sa bopp sa jàmbaar bala la mbaaye ñaaw ndax yow xamoo enseignement wu sëñ bi xamoo ci dara enseignement sëñ bi ak miracle sëñ bi ça n'a rien à voir te miracle boo gis sëñ bi jógal pour miracle ndax bu doon miracle rek saa waaye ñëpp dem ci tubaab bi jaamu tubaab bi ndax kenn daqul miracle tubaab bi daay noo daay noo bi nga xam ni magicien la mais day dox ci ndox daay noo day dox ci ndox magicien la kon bu doon loolu ñëpp dem jaamu magicien yi ñëpp dem jaamu gars yi nga xam ni dañoo extraordinaire tubaab bi lu ñu fi deful amul donc sama gaay loolu laay terminer ñu bàyyi fanatisme bi ñu wàccee suñu xel yi ñu day dal ñu dal ñu dal ñu dal ku ci nekk la ngay jaamu yow la engagé parce que ku dee ak sa bàmmeel ku dee ak sa bammel ku ne la ngay jaamu yow la engagé jaamu ko yàlla coronavirus pandémie la lu existe la nañ déglu médecin yi médecin yi ñi nga xam ni ñoom la seen xel màcc ci mbir mi les maladies contagieuses ñooñu dinañ ñu wax OMS organisation mondiale pour la santé ña ngay wax ay boroom xam-xam ñoo fa ne nañ leen bàyyi xel nañ leen déglu boo duggee situ OMS di nga am information yi docteur yaa ngay wax ñam seen xam-xam màcc ci mbir mi feebar gu demee nii am na lu bari luñ gisagul avancé guñ ci lañ gis mooy xamuñu lu koy joxe mënaguñ ko wax mais nee nañ la ko indi xamuñu xamaguñ ko ki nekk nga naan lii ak lii la ña nga ci borom xam-xam yi daw nañ ci laboratoire yi ku nekk ngay gëstu waaye delloo leen seen xel ci ku ci nekk ngay raxas sa loxo saa yoo waxtu jotee ngay raxas sa loxo parce que man xam naa ni ak nu ma bëgg-bëgg Serigne Bamba ak nu ma gëm-gëm Serigne Bamba wala El Hadj wala Baye Niass billaahi bu nit amoon coronavirus laa la wax dajeeg man ne ma tissu wala mu jox ma loxoom ma lekku teg ko fii billaahi wax ma laa Sëñ Bamba Muhammad sax sallallahu alayhi wa sallam bu ma gëmoon yaakaar ne dina ma sàmm ma jëlee ci coronavirus. parce que ñoom seen bopp ñoo nañ leen fagaru moo gën faju fagaru moo gën faju amul sëriñ bu leen waxul ngeen bañ a fagaru. fagaru leen ñaan sax dafa ànd ak fagaru ñaan sax dafa ànd ak fagaru dafa ànd ak sabablu sabablu sabablu mooy fagaru sabablu ñaan sax dafa ànd ak sabablu boo toogoon fii ne yàlla ma yàlla euh, euh, ma ma bëreeg Balla Gaye yàlla naa bëreeg Balla Gaye daane ko tëdd sab naan yàlla na ma yàlla di julli di jàpp di woor di ñaan yàlla ma yàlla may ma bëreeg Balla Gaye yow amoo permis yow doo laam doo mbër mais kañ la la yàlla di may nga bëre Balla yaa ngi tëdd sa kaw lal doo mbër amoo licence xamuñu la nga tëdd fi nga tëdd parce que bëgg ngay milliard ne yàlla ma yàlla may ma bëreeg Balla ba daane ko yàlla ma yàlla may ma bëreeg Balla Gaye Modou yanu leen ci kaw wattal leen suuf di ko julli di ko jàpp kañ la ko yàlla di may donc dafa ànd ak sabablu dafa ànd ak fagaru diine dafa ànd ak fagaru dafa ànd ak sabablu dafa ànd ak set dafa ànd ak sell yàlla sax moo ko santaane set ak sell set ak sell fagaru sabablu loolu yàlla leen ko wax loolu sëñ Bamba leen ko wax Alaaji Malik moo leen ko wax Baay Ñas moo leen ko wax c'est kon nag sama gaa yi Sénégal feebar baa nga fa taluma may ne naan ay Sénégal Sénégal laa wax Sénégal boo ne Sénégal Sénégal benn dëkk bàyyiwuma fenn amul fu feebar bi munul dugg amul fu feebar bi munul dugg feebar bi dugg na ci pale yi feebar bi dugg na ci kër sëriñ yi feebar bi dugg na ci kër imaam yi feebar bi dugg na ci kër euh, église yi feebar bi dugg na ci jàkka yi dugg na ci jumaa yi amul lenn lenn lenn lu koy téye boo leen nag ni yéen a yor xam-xam bi yéen a yor islaam ke islaam amul feneen fu dul Sénégal jël ay nit di julli julli ñu fekk leen fa raatale leen ay fetal ay nit di julli ñu exploser leen bomb waaye lu tax yàlla sàmmul ñooñu ñu bañ a dee ay nit di julli ngeen seetaan ko ay nit dugal fa bomb ñu dee rey leen ay nit di julli nit tiime leen ratatati leen fetal bañ faatu seen chaque jour ci monde bi ngeen gis ko te dañ doon julli dañoo jàpp ba set di julli ngeen koy gis naan yàlla leen yàlla yërëm waa léegi comme ñoom dañ doon làqu ci yàlla lañ leen fekk ci yàlla ci bërëbu yàlla ci ñu ne ñu ne jàkka juma moom mooy néegu yàlla ci néegu yàlla lañ leen fekk faat leen fa rey leen ak bomb rey leen ak fetal bu dee yàlla ci boppam lañ doon jaamu ci moom ñu fekk leen foofu rey leen ay nit di aji màkk di wër wër kaaba gi mu am bousculade am ay moor ba am ay sénégalais ba am ay sénégalaises ay sénégalais màkka màkka aji màkk am embouteillage ñuy puus ba bu ma xante mu am bousculade bu metti am ñu fa dee ñu bare bare bare ñu fa dee ba am ay sénégalaises ba am ay murit ba am ay tiijaan ba am ay xaadar biir màkka nit yi léegi dañuy dee màkka di feebar di dee dañuy dee dañuy dee ci jumaa yi dañuy dee ci jàkka yi mais Sénégal moom dafa am ñu fa tëdd ñoo xam ne ñoom ñooy sàmm nit ci lépp lépp ay nit a leen jàpp di leen tilimal di yàq seeni dar ci lépp ñoom dañuy sàmmaate bu feebar amee ñoom dañuy sàmm kenn du feebar bu dee amee ñoom dañuy sàmm kenn du dee bu bu nattu amee ñoom dañuy sàmmaate kenn du dee soyons sérieux un peu ñu jël affaire bi au sérieux parce que c'est une chose extrêmement sérieuse lépp nag suñu njiit yi la amuñu respect ci doomu aadama suñu njiit yi amuñu benn respecté wuñu la valeur humaine parce que tamit gis nga nit ki perception bi ngay am la la nit ki di joxee cër boo joxul sa bopp cër kenn du la jox cër bu caga taxawee yaa ngi dégg ne moom caga la mais nit mënu ko jox cër dañ koy yóbbu rek laal ko delloo sànni ko sànni ñi ñu ko jox cër mais tey bu nit doon ñëw wax di wax ak yow nga am taxawaay bi nga taxawee du ñimewul sax du du ñimee taxaw ak yow di wax wax ne dama la bugg a iri donc nguur gi par rapport nu ñuy xalaatee ak nu ñuy taxawee lañ ñuy ñàkk joxe cër parce que bu fekkoon dëkk boo xam ne la dëkk analytique dëkk boo xam dañuy dañuy xalaat dëkk boo xam ne vraiment dañuy indi ay idées yoo xam ne innovatrice ay idées yi rafet ba pare dañuy dañuy dañuy jël seen dañoo am le sens de responsabilité kon nguur gi du ñu doxee nu ñu doxalee mais nguur gi ci boppam daf ñuy nax parce que xam na ni dëkk boo xam ne dañoo nax la ñuy ku leen nax la ñuy gën a bëgg ku leen di wax dëgga ah. parce que dëkk boo xam ne gaañ coronavirus am monde bi ñii di tëj ay frontières ñii di i avions yi ñii di arrêté métro yi ñii di ñoom toog fu ñu toog naan barki sëñ Bamba barki Alaaji Malick barki Seydou Nourou Tall barki Limaamu Laay barki Baye Niass du fi dugg non kii naan du dugg Kaolack kii naan du dugg Touba non du laal kii du kii bi mais dëkk boobu man bu ma leen doon jiite sax du ma leen jox cër non du ma leen c'est des animaux c'est des c'est ils comme des animaux parce que l'instinct, l'instinct animal, ils réfléchissent à, à, travers l'instinct quoi. mais duñ xalaat seen instinct rek la ñuy doxalee donc dëkk bu di xalaatee noonu kan nan ngeen bëggee nguur gi respecté ko ah mënu ko respecté tout le monde ferme ses frontières sauf le Sénégal Sénégal yàmbalam wax naa ko. frontière na yàmbalang yomb yaa ni àll black people lan la wax ma lu ñëw jàll feebar bu ñëw dàll la frontière yi na yàmbalang yomb yaa ni àll nit ku ñuul moo sonn buur yi sàcc rawale abal doom yi donn baadoo lay ronu xiif rafle mar woy naa ko feebar bu ñëw dal la lu ñëw yóbbu la amoo bopp doo xalaat lu ñëw nax la waa ji génn naan la ay paan baa ngi nii defar naa ay garab te xamul sax lan lay faj parce que balaa ngaa defari garab xam looy faj kooku sax suba suba suba gaa yi ran ko suba suba suba gaa yi ran man gis naa ci kenn dama yàgg topp affaire yi benn jour dama toog ci télé bi foofu laa tëjee affaire dama toog ci télé bi gis benn waay benn booy bu génn ab murit la nee na nee na eh, surtout Cheikh Ibra la mu nekk ci télé bi di wax day faj lii day faj laa day faj kii day faj kaa boobu maa ngi benn tali mu ne moom mi Castor la dëkk ma gis ko ci télé bi ah, mu ne Castor la dëkk di joxe ay rendez-vous maanaam mardi jeudi samedi day faj lépp lay faj nee na ma ne ah dara daluma ma ne xaaral ma dem xooli nan la sénégalais yi di mel foofu barki alxuraan ma jóge benn tali yeewu dugg sama euh, car rapide dem Castor ma ñàkk sama ndey gis nga fa en face Sénélec bi foofu la waa ji newoon parce que daf ko wax en face Sénélec bi ma dem mais gis nga dama tege bu ma nee bëri di ñëw ngénte laa foog ne moo fa am ngénte des centaines de milliers de personnes ñoo rangoon foofu des centaines de milliers de personnes ba ci ron am na benn genre pënë bu nekk fa pënë bu ngand ba foofu am na ñu toog ci pënë bi maanaam koñ bi daa dafa fees tepp tepp tepp tepp tepp ba ci pënë bi am na ñu toog foofu ma wo waaw kon kii publicité bi mu def démb ci benn télé tey nit yi mel nii ngénte mu ñëw ma ñëw jege gaa yi jaaj salaamaaleykum ça neen def sawa va ma ne ko waaye dafa am benn démb dama seetaanoon benn euh, télé gis benn sëriñ mu ne day faj lépp mun na faj lépp quoi vraiment maa moon soxla pour kii mu ne ñun ñëpp moom lañu xaar ni yii fii kay sawa tey moom xam naa ni ñuy dugg duñ bëri ba fii ñun ñëpp moom la ñu xaar ma ne ko ñii ñëpp ñëpp ñëpp man man dama foog noonu ngénte fi am la kon de bàyyi ma dem ba mu a ah moo gën de fii de léegi de rendez-vous la sax rendez-vous la dafa am ñuy tax ku taxaw foofu noonu benn cousin am la xaw benn kii moom mooy jël ay rendez-vous livre kan kay ngand yi muy bind tur yi rendez mu fees tepp tepp tepp lu mu bëggoon rek mooy information nan la nit yi di intercepter information yi nan la nit yi benn nit bu taxaw ne moom mun na faj lépp mu fees tepp tepp tepp ma dellu ndànk ñibbi toog dama bëggoon am rek nit yi na senegal ban problème man loolu dama ko yàgg nag kii man loolu bëgg naa ci sax bind livre ban problème la sénégalais am ban problème la sénégalais am parce que dafa am problème quoi quand benn problème boo xam ni. mooy moteur bi mais dafa dajale ay problème yu bari seen booy wër problème rek dem demal jël sénégalais quoi vrai problème la am vrai problème loolu mu ko yàgg xalaat nag moo tax nu ma nee def tekk di seetaan internet bi nga gis ku nekk génn sëriñ bi génn bi nga gis benn jigéen bu génn waa xam naa ko mi ngi dëkk mi ngi dëkk mais nan la nit di feebaree jóge Italie ñëw wàll ay nit nga ne ngeen ne yéen Sénégal nañ génn gaañ bi force réew mi nañ génne gaañ bi force wili pande ko fi yéen xamu leen secret xamu leen secret euh, euh, euh, ci liggéey liggéey dafa may secret nit bu sida amoo droit kii dafa sida Fatou Ndiaye dafa sida Khady Diop dafa sida wala Mamadou Fall dafa sida amoo droit bi amoo droit nit dafa sida amoo droit ne nit wili pande ko ne nit ki dafa euh, coronavirus dafa am ay secret exactement dafa am ay secret médical mais Sénégal bëgg ne waa daaru marnaan waa daaru minam ne ñoom foog ñu génne leen ku <laughs> waa ji quoi naa Mourou Fall la kii naa Demba Diop la ñuy wax a wax wax bay fen di wax ay waaw wala moolaa dafa sida amoo droit bi dafa ay secret médical amoo lenn lu la permettre nga ne Mollah dafa sida amoo droit bi boo ko defee bu ma la porter plainte dañ lay jàpp dañ lay tëj danga may fay xaalis amoo droit ne Mollah dafa coronavirus mais taxaw waa daaru mi naan yëpp génn mel ni ñuy dugg ci ay kër daaru mar naan ku ne naan non seen kër ñaata nit la kenn kiiwul di dem di wër ci kër yi non c'est du jamais vu non Sénégal Sénégal daal mi ngi noonu quoi Sénégal daal sa noonu nañ ko bàyyi noonu quoi bàyyi bàyyi ma ñëw pare ko fii parce que lii lii c'est extraordinaire ku nekk génn wër nañ kër daari mi nañ ban jeex tàkk wër nañ daaru mar naan ba jeex takk kenn defu ko dañuy fenn kenn amu ko fa waaw kenn amu ko fa nag kenn génn xam naa ko ka fa am Mout Ndiaye la Mout Ndiaye doomam mi ngi tudd Faat Ndiaye Faat Ndiaye yaay jabaram mi ngi tudd Khady Thiam Khady Thiam nag moo jur soxna umpaañ kaañ moo ci bàjj na mooy umpaañam ñoom ñëpp dañoo dañoo coronavirus kenan coronavirus kenan coronavirus kenan coronavirus kenan coronavirus non caa extraordinaire man monde bi buñ buñ bu fekkoon senegal dafa important ba monde bi di ci bàyyi xel non boo yoree benn animal dañ laa ne yóbbu ko Sénégal boo yoree ab animal bu feebar wala dañ la yóbbu ko dëkk yee dëkk Sénégal gee dañoo animal ay animal ay animaux fa ne c'est des yóbbu fa animaux yi mais heureusement yàllaa ñu dimbale. ba réew monde bi dañoo ay lumière lañu rawee Sénégal ba taluñu Sénégal Sénégal taluñu leen sax dañuy ñëw touriste foo tu Sénégal defuñu ko dara lu ak touriste na dëkk boo xam ne dëkk bi yomb la am na géej am na soleil nit yi kuul nañ c'est pas des agresseurs dañoo sonn lekk ñu ñu koo ci may mille francs sax mu dem cogg la mu fóotal la sey yére donc loolu lañ jàppee Sénégal comme des animaux donc ñu xel Sénégal mais bés buñ bàyyiwoon xel Sénégal di dégg wax yi kii naan coronavirus kii naan corona coronavirus kii naan coronavirus kii naan Fat Ndiaye la Fat Ndiaye ko am yaayam ba bàjjanam bàjjanam Cheikh Ndiaye la tudd umpaañam nag moom moo jur bàjjanu wéjju peccorgoom moom moo ko moom moo ko ko jox bu ma ko joxee man sax sama umpaañ woon na ko ne ko bu ko bu ko fa mais ay wax yoo xam da nga Macky Sall aura des problèmes ah. Macky Sall a des problèmes man je comprends ça <laughs> waaye non je conseille à Sonko mu bàyyi quoi réew mi du réew mu ñuy jiite réew mii mënu ko jiite réew mi ku wàcce woon yàlla def ko président indi prophète sallallahu alayhi wa sallam def ko premier ministre jël prophète yëpp def leen ay ministre billahi wallahi wa taalaahi duñ doxal yi réew mi réew mi nit yi ñoo feebar réew mi nit yi dañ feebar billahi bu yàlla doonoon président wu Sénégal Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam doon premier ministre ñu jël ñoom yooyu yeneen yàlla yuusu Suleymaan ak yooyu barki alxuraan dañuy échoué dañuy échoué parce que nit yii kenn mënu leen di kenn mënu leen sauver ñii mënuñu leen sauver non mais culturellement ma ah, gars yi salaamaaleykum waay ñu fanaane jàmm jaajëf yàlla yàlla sàmm réew mi waay ah tat tat tat oh mon dieu catastrophique c'est incroyable comment les gens pensent ni ñuy xalaatee nit feebar nga ne nañ la génneel nit bi par force nit dem daan ay di di sax di fenal ay nit naan xam naa ko Demba kan la tudd jabaram Fatou Ndiaye ak umti ujub waaw non mais attendez mais ça c'est quel pays ça mais c'est quel pays un de bordel de merde damn shit